donc man duma dem di dawal gaal ka daan dawal gaal mooy ka daan wuti jën te xëy na gisatul jën hmm. mu reconvertiru ci métier am à ses risques et périls beneen bi mooy la question de l'industrie hmm. c'est-à-dire est-ce que ñaar yooyu boo foogoo ne buñ ko attaqué woon xale yi mën nañoo toog ndax dans rien que dans le domaine de la pêche Mamadou Mouhamed Sénégal bi ñu génnee ci indépendance yi ba ñëw dans les années 80 amoon nañ lu au bas mot trois conserveries ak benn industrie bu mag nga xamante ni ça recruté au au minimum 1500 personnes boobu ton bi moom la ñu daan jël di ko fi traité yooyu cest à régression boobu ñu am dans ces secteurs stratégiques est-ce que tey jii mënuñu def une mission de correction ba tax xale yi toog Sénégal. gis nga Pape li nga lu ma la war a tontu wax nga ko ci nu gàtt nu leer Pape pouvez imaginer Sénégal qui fait partie des l'océan du Sénégal l'Atlantique au Sénégal la mer du Sénégal fait part des mers les plus poissonneuses sur 700 kilomètres. Mm-hmm. ñu am ay population xam ne seen tradition mooy napp 1960 ba léegi Sénégal mënut a defar potub sardine <laughs> potub sardine mais Mohamed ñun ginnaaw euh, européens yi war nañoo war a fexe woon ba xam ñoom seen temps bi ñu suñu temps bi ñuy napp si hmm. lan lañ lan lañ lan lañ koy def naka lañ koy transformer ba ba ba mu jaral leen ñu ñëw fi su ko defee ñu transformer ko ba mu mel ni ko européens yi transformer yóbbu ko jaay ko fa waaye ne yàcc na yasar di jaay ton euh, euh, bu nu waxantee dëgg yàlla wax dëgg yàlla suñu classe politique gi moom dañoo yàq. la dañuy transformé ñëw jaayaat ñu ko ñun te fi lañu catastrophe ngoog boo xoolee Côte d'Ivoire bëgg dem lu ñu décidé mais nee nañ seen cacao dootu ñu bàyyi mukk di muy dem Suisse ñu di ko soppi cacao di ko delloosi. tout dañ koy transformé sur place. tey jii boo xam ne les su ko nappee lépp dañ koy transformé te am ñu dara. ñun waa Sénégal ñu am lépp te duñ transformé dara. alors alors foofu point de l'histoire nga dañuy wax ne le premier lingot d'or le premier ministre Habib Thiam moo ko génne woon c'est-à-dire que jii boo xoolee waxuma sax la situation ci dëkk yooyu nga xamante ni fa la ñuy génnee ressources yi yaa ngi réer honorable noonu lingot d'or ba li ci Pape rek li ci Pape teg moo garaaw <laughs> cest à Sénégal réew mu toog ci réew mu toog ci përëm <laughs> mais li gën a li gën a réew mu toog ci or di yarwaan përëm mooy Sénégal. mais waaw mais foofu aussi ci li ma bëgg rek mooy ñu xool la situation dëkk yi nga xamante ni ñoo ngi fay jëlee or bi phosphate bi ak euh, yeneen ressources yëpp déjà situation dëkk yooyu rek dafay alerter. le bon sens ci ni nga xamante ni noonu lañ nekkee ba pare di subir les impacts de cette exploitation mais foofu li ma bëgg laaj mooy en tant que koo xamante ni nekkoon nga représentant des populations mooy ban contrôle lañ ci def est-ce que contrôle bi ñu ciy def tey ci waa Bargny ak li ñuy dund ak ak boo demee Sendou tey li ñuy dund nga dem tey ji Sabodola Kédougou gis nga li ñuy dund nga dem Diogo gis nga li ñuy dugg tey quest que qui se passe à ba nga xamante ni mënuñu nag à un moment donné soit ñu transformer dëkk yooyu ba nga xam dinañ am résilience par rapport ak li ñuy exploité wala soit ñu ñu xool nan la ñuy def ba ba matière première yi dootul dem waaye xam nga Pape boo xoolee li ma la wax sànq réew mu toog ci or ba noppi di yelwaan përëm mooy Sénégal moom loolu nga wax phosphate yeeg zircon beeg or bi wax dëgg yàlla suñu borom dama la wax sax ne la Sénégal li yàlla lay defal askan pour mu réussir defal na ko Sénégal waaye noo yaafus est-ce que yow jaadu def nga ne Pape jaadu na nga ñëw gas or bi ci suuf def ko ci saaku pesé ko génne ko yóbbu ko bitim réew ñu transformé ko ak Sénégal tradition d'or fa réew bi ñu am tëgg yu xarañ yi ñu yor waaye lu ñu fi yëkk dañ koy natt dem yóbbu ko bitim jaay ko fa a dakk c'est pourquoi moi j'ai dafa war a nekk une boo xam ne Sénégal day def introspection ci juróom benn fukki at yi mu moom mu moom boppam ñu xool jéego yi ñu doon dox yaafus gi ci feeñ tayeel gi tële gi ñu seet naka lañ koy jubbantee ba tabax beneen Sénégal bu bees maintenant Sénégal bu bees boobu ñu bëgg a tabax nag pour ñu def ko il faut ñu jaarale ko ci Sénégal bu sénégalais bu bees parce que nag boo xoolee réew mi maanaam barab yow yi nga xam ne fa la xéwal yi nekk demal demal gét ndar ba ba ngay dem Cap nga xool dëkku lébu yi ni ñu dundee mm. nga xam ne dund gi metti na demal nam tuddati fi ñuy fi ñuy gase phosphate bi nga xool nit ñi ni ñuy dundee nga dem fi ñuy gase or bi nga xool nit ñi ni ñu dunde nga dem euh, euh, euh, jolof man jolof jolof la nga xool ñi nga xam ne ñooy sàmm yi ni ñuy dundee ba léegi ñu ngi màng di topp di wuti ñax ak ak ak ndox di jóge biir jolof di dem boori Saloum 60 ans après l'indépendance loolu c'est trop maintenant nag gis nga boo déggee j'insiste toujours sur les 60 ans d'indépendance man dama bëggul ñu bàyyi accusation yii Macky def lii Ablaye def lii Sénégal ci boppam aw doxee na ma yeex te nag doxin bi dafa war a gaaw parce que man li ma jàpp mooy lu yàlla defalu askan ba mu ba mu am naataange rek defal na ko Sénégal. léegi ci licence de pêche yi. oui. ñu bëri nee nañ ni ñuy joxe licence de pêche yi ak ñàkk mooy yoo xamante ne ni dinañ ko contrôler jën yi. xamuñu lan la ñuy jàpp xamuñu lan lañ du jàpp dégg nañ ministre bi tey mu ni li ñuy joxe buñ ko joxewul itam jën yi dëkkuñu fi am na jamono boo xamante ne nii dañuy dañuy dañuy dem boo ko joxewul keneen joxe ko licence licence de pêche yi noo yaakaara ni noonu la ci gouvernement bi tara taxawee supprimer ko wala non dañuy saaga Sénégal xam nga nag jàpp naa Sénégal war naa mën a xam ba ban poisson yi fi ñu jaar wutoon xarala yoo xam ne bateau yu toll ni yi fi nekk ñu di ko nappa suñu bopp c'est-à-dire lu ñun mënuñoo am bateau yu napp ni Union européenne mën lu tax ñun mënuñoo am bato yu ñu nappa sun suñu jën yooyu buñ fi jaaree non xam nga xar day weesu mbote nag. mais licence bi jëm boppam. mais bien sûr cest à licence bi dafa jaaduwut am na ku ngeen fi invité wala dégg naa ko ci benn benn rajo mu ne moom man man yaa na gis nga Mohamed mi nga xam ne Bawol Bawol la Mohamed Ndiaye mii. Jolof Jolof Jolof Jolof waaw c'est la même gis nga ku la ku la joxoon ba géej gi ne la indi 8 milliards ñu jox la ko yow da ko jox da nga wut 8 ko liggéey ci 100 milliards. Mm-hmm. c'est une nga joxe ko pendant alors que ton beeg ya ca nekk boo ko nappee transformé ko mën nga ci am centaine de milliards mais ça suffit et d'ailleurs imaginez Mohamadou de 1992 pour affaire organiser Sénégal 92 Sénégal jox géejam gi Chine mu tabax ko sat aku pont <laughs> aku pont non c'est-à-dire xa nañ non nañ jóg suñu bopp. alors finalement ça pose la question de la négociation c'est-à-dire est-ce que tamit. foofu it du foo xamante ni au delà même du Sénégal état africain yi souvent. oui dafa am tradition bu ñu am mooy gars yi dañ naan la xaalis a ngi nii jox ñu ressource. est-ce que tey changement de cap bi warul opérer wu tamit à ce niveau. d'abord man li ma jàpp euh, lu ñu war a def nga ne c'est une urgence. Mm-hmm. mooy ñu mutualiser no suñu suñu géej gi. cest à li ñuy def union union économique euh, européenne union. européenne non économique euh, la CEDEAO. wala l'UEMOA. cest à ni ñu ni ñu ni ñu boolee suñ koom gi dañ maanaam géej gi dañ ko war a def suñu géeju bopp ñun ñëpp ñu bokk ko man jàpp naa ne su boobaa danañ gën am possibilité jënd ay bateau ultra moderne danañu am possibilité defar ay usines su ko defee li ñuy nappee ci géej gi ñu mën koo transformer di ko exporter li nga xam ne moo jaaduwut mooy ngay bàyyi ay ndoxan di ay ay étranger yi ñëw di manque sa géej di ko yóbbu bitim réew même ñi nga xam ne sax dañoo ami bateau tey ay sénégalais am fi usine la ñuy def mooy dañuy napp ñëw defar ko ba baax ñu dugal ko ci ay kii yóbbu ko bitim réew exporter ko Sénégal 1960 ba léegi ak géej gi mu yor mënuñoo defar potub sardine. mais honorable est-ce que nangu nañu dem vers changement hmm. yaa ngi cité léegi CEDEAO di organisation sous-régionale mais organisa CEDEAO dañoo wax ni dañuy préconiser libre circulation des personnes et des biens mais am na dëkk yoo xamante ne da fay dem mais libre circulation boobu tur rek la ah, tur la foofu noonu duñ ko fa gis sax yaa ngi wax sànq dañuy jël temps exporté ko mais dañ koy exporté transformé ko ñëw jaayaat ñëw jaayaat nu ko mais tout le temps li ngay dénoncé nii bëri nañu toog ci plateau yi di dénoncer la même chose oui quest qu'il faut parce que gisoon nañu amoon na ay jamono Y'en a marre préconisé woon fii NTS nouveau type de sénégalais te bokkul ak guddi Y'en a yi boobu ñu ngi amoon doole bokkut ak guddi yi ñu toll ginnaaw après 2012 la woon mais sénégalais yi suivre ñu woon loolu donc c'est quoi le tey jii ba nga xamante ni ñu ñu ñu refondé waat suñu suñu suñu esprit gis nga nit ku bees moom buñ ko bëggee Sénégal xam nga li tax gouvernement am solo gis nga le leadership mooy transformer oskan faama keroog bi sëñ Tuubaa di jaayanteeg Kajoor ca Mbàkke Kajoor ñeent fukki góor yàlla yooyu daf dañoo ñëw ko parce que dañoo bëggoon a defaroo la même chose ngay constaté ci Cheikh Seydi Malick ak mag ñi cest à ñun tant que amuñu leadership maanaam kilifa goo xam ne daa bëgg a soppi sénégalais yi ngir ñu mën a nekk ay citoyens yu taxaw tant que amuñu loolu lii di la lii la naqari di am. kon ci bopp la xaar mag la. xam nga fii dañu demoon France président Jean Moujema di wax ne Afrique déficit bi mu gën a am mooy le déficit de leadership transformationnel. Euh, gis nga boo xoolee dama lax la 63 60 ñun ak Corée du Sud. Tunisie Habib ba nekk fa. defarum réewam. nga dem euh, Corée du Sud fekk fa le général Park un militaire mu defarum réewam Senghor ñëw fii ñu naan c'est un agressé galamé jàngal làkk. waaw c'est-à-dire balaa xol ba sedd rek mu làkk ba mu jub <laughs> ñu naan Senghor agressé de grammaire mu daal di ci teg lu garaaw nag yoo xam ne da ngeen ci def sànq da ngeen ci bàyyi xel euh, Pape Djibril mm-hmm. Senghor daf ne na woon l'an 2000 Dakar sera comme Paris xam nga loolu lan la tekki mooy mm-hmm. élite sénégalaise bi dañoo jàpp ne xibla gi France la Kaaba gi Élysée lu France defut baaxut topp ko di yagar-yagari mu dinu wutal monnaie dinu dinu defal lépp xoola bëkk démb rek nga xam ne maanaam boo Macron ni mu doon wax naan way le sentiment anti français ngeen ko war a xeex di maanaam di joxeñ ay doom yi ay morom yi bàyyam yoo xam ne ñoo ñoo gën a légitime foofu ça veut dire sax fenn kon encore une la question de fond c' est la question du leadership man de jàpp naa ne sëñ Tuubaa def ba taalibe mi mu defar leen Alaaji Maalik def noonu bis bu amee leader yu mën a defar Sénégal yi bañ mel ne ñooñu sëñ Tuubaa defaroon Sénégal jógee fii mu nekk. balaa Mohamed balaa Mohamed di dem ci mairie. Euh, bëggoon naa xam ndax yéen bi ngeen di nekk assemblée nationale suñ masaan indi par exemple loi des finances est-ce que dinañ leen wax ni leen xaalis bii moom lañ jëlee ci licence yi ci fii lañ koy dugal ci budget. xam nga on est li ñu su ko de caisse au Sénégal maanaam gafaka gi dañ ciy jox lépp waaye yenn détail moom mën nañ la ko bañ jox. waaw hmm. ah, ko bañ jox moom xam li li nga xam ne day jóge ci recettes yi maanaam impôt. li nga xam day jóge ci ay ay ak yu mel ne ay ay ay convention da nga xam montant global yi quoi euh, globaux yi pardon mais yenn détails amul benn colonne boo xam ne dañ naan lii mooy nangami milliards yi nga xam ne moom la ñu union européenne jox ci non non xam nga mën ngaa ko xam yooyu mën ko xam mais day dugg fenn parce que mm. yooyu ay rubrique lay doon mm. ay ay su ay ay ay dons ay prêts ay ay nam tuddati ay euh, yooyu koo xam mais day nekk global parce que Sénégal moo am de caisse lay liggéey quoi maanaam alal ji dañ koy boole yëpp mm. ñu lii lii mooy budget bi li maanaam fii la ñu jëlee lii maanaam fii la ñu jëlee euh, xaalis bi ci wàllu impôt ci wàllu lu ñu signé ak euro ak union européenne ak yeneen pays la ñu mën a ne temps dugal ci beneen dafa dem ba ba ñu am budget bi loolu la mais en fait di la jox yenn détails yi loolu moom du du du lu ñuy def d'ailleurs moo tax en fait dafa am benn lu ñuy wax la loi de la communication la loi de l'information gouvernement bu Sénégal da cee war a jóg gis nga man ñu informer député yi sax du son ba journalistes yi di mën a am démocratie c'est-à-dire que dañu war a ubbi ministères yi journaliste bu mën a ñëw agence yi direction yi su ko defee bu bu ñu ñëwee daañu xam la fay xew bu ko defee ñu man ko informer maintenant gis nga même formule bi président ba indi ba fan yi maanaam le gouvernement face au ministre gis nga bis bu ngeen yemee yéen ba xam ne ñi dañ leen di nax bu ñu leen wooyootee du ngeen wuyu. am na aussi beneen innovation boo xam doon nañ ko xaar ci gouvernement Macky Sall. Mhm. mooy ci ci gouvernance am mooy ci au niveau du parlement ñu am une radio et une télévision parlementaire nga xamante ni nit ñi dinañ mën a xam la teneur au delà ci plénière yi ñu xam débat yi nan lay demee comment ça se kan moo waxal kan kañ fa yónni woon ndax la mu defoon wax nañ ko wala waxu ko est ce que loolu aussi jàppoon ne mel na nu nekk benn innovation boo xam mënoon dimbali citoyen yi pour mu mën a comprendre davantage enjeu yi gis nga Pape bi ma ñëwee assemblée hmm. ko def bi ma xool ko ma gis ni ne effectivement bari na jàngoro yu am assemblée nationale saafara si mi ngi ci. bon jamono yooyu ma laaj président Moustapha Niasse ne ko est-ce que mënuñ ci liggéey ba mën a exploiter document bi man cee jëriñu bon mu ne mu amul xaalis ma daal di sol sama daal dem seeti Mouhamed Mbodj bu forum civil ma ne ko dama bëgg document bi ñu liggéey ci te amul xa assemblée amul xaalis bu mu ci def Mouhamed Mbodj sol dàllam ñu seeti Osiwa Awoba ñu financé un atelier de 4 jours à ñu génne beneen règlement intérieur bu bees. ak deux 200 recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'Assemblée nationale bokkoon na ca ñu fexe ba commission yi bu ñuy liggéey journalistes yi mën a toog di ko fekkee parce que aujourd'hui les les les commissions travaillent à huis clos lu tax commission yi li muy liggéey waruñu ko wax askan wi. te yéen bu ngeen fa toogoon xam nga boo gisee assemblée am na député yoo xam ne plénière ba plénière la ñëw hmm. dafa spectacle bu fekkonte ne tey jii yi sax naka la liggéey parce que di sax ci absence yi di renseigner ci absence yi tax am na député yoo xam ne moom maanaam cinq ans yi daanaka duñ ñëw jën yoon la ñëw assemblée sax maanaam bisub une installation yi kon effectivement ñun boole woon nañ ci luñ ci euh, maanaam pour faire maanaam assemblée député ma journaliste yi di fekk travail de commission effectivement sur la question de la rajo moi personnellement j'en avais même parlé au président de la République na ko RTS 2 mais nañ ko affecté assemblée nationale sous forme même de location muy émettre au moins durant les plénières extra bu defee Sénégal yi mën a xam directement lan mooy xew xew xew assemblée nationale mais même maintenant avec les, les, les nouvelles technologies. Hmm. se passer de moderne moom yombul am na ñu moderne <laughs> dara dara dara am a yàq leen gis mhm. a yàq assemblée bi sama daal di dañu wax ne euh, campagne njënd ak gerte gi léegi ren kilo gerte bi